dafa suufee ay waay wuy ma wuy leer waay. Ketchup ah, waaw rek. Ketchup bu ah, fàtte da ngaa soo waxalee yàlla rek. ma xam mën. waaw ah, léegi nan laa ba daal la. noo ma daale. yow boo yow yaay commencé bon de. yow nit def. yow mais tu yow tu as une feuille fourchette. <laughs> mais toi. yow tu es fou. yow yow yow yow en ah, France yow moi. tu es yow tu es un tamarin. tamarin. tu es un Nouroula. si je suis un Nouroula ah. parce que Nouroula c'est mon ami. parce mais tu si je suis un Nouroula les vitamines de Nouroula il me le permettre de le bagarre avec toi et je le tousse tu vas dormir en sort. pourquoi. parce que tu as vu tout que j'ai fait sur toi. waaye regarde les sénégalais waaye. regarde respectez les sénégalais waaye. les sénégalais sont regardés bien. tu n'as rien fait dans la lutte. c'est bon tu es fou. tu as vu ce que j'ai fait. ki ya daanu mel ni moo daan buuse yow. <laughs> yoo léeg-léeg. di nga xam ni man maa la man. alaaji. Eh, yoo léeg-léeg. bi ma la jàppee dama la duma. buuse yow gën gën yoo lele xam nga ni xale màgg na alaaji yoo lele waaw waaw li muy réere yaa ci gën neex a daan kéccob yow gën gën yoo lele li ma metti sax gémmiñ gee rëy rek yow waaye maa la mën man su ma doon wax damay jël sama téléphone di si na kenn giisu ko yoolel alaaji man maa la mën billaahi yoolel su ma la jàppaatee su ma la jàppaatee bu xaadim jaaj ñëwul gauche droite ñëwul njoogu gay ñëwul dinaa la duma lu metti buuse yow eh, ii bu ndaw yoo kan mooy am yow Omar Sow ak Pape Diouf ñoo ko bokk di daanu Omar Sow ku bëgg sëriñtu Touba mu bëgg la bàyyil sama nit ki Omar Sow ñoo ko très bien woowal say nit. très bien ma samay bos. très bien alaaji. woowuma say nit très bien. Omar Sow taalibe Serigne Touba la ñëpp la bëgg moom Omar Sow. ci ko gë gë gë yoo leen kii du mi <laughs>